Euh, jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy topp ci seen bi di Timis TV leen jaajëfal ci euh, xool bi ngeen di xool suñu site internet timisactu point net ñuy wéy di ànd ak rek ci li nga xam ne moo di couvre-feu bi taxawaayu police bu euh, poste police bu buy mbind ci liggéey bi nga xam ne door nañu ko bi mu dooree ba léegi ci guddik bi gi nag di jeudi bi juróom-ñeenti fan ci weeru avril ñoo ngi wéyal kon euh, ñaareelu xaaj bi nga xam ne ànd nañ ko ak ñoom euh, ci fi nga xam ne moo di euh, sura jàpp gede foofu la ñu fekk soxna si ngeen di gis moom tamit mu génnoon jóge woon kër ba kër wala koñ ba koñ sax di dox ci waxtu woowu waaye ci noonu la ko police yi wàcc wax ak ñoom waaye lépp rekk ci ak dar waaye lépp ci yar waaye lépp ci teggin tamit amal ko daal ne ko dellul sa kër ba suba ak jàmm li ngay dox nga li ko. relation ba sax da koo fekk ci ak huit heures huit heures gisoon nga ay nit ci mbedd bi bi ngay dem gis nga ñu toog ci mbedd bi waaw kon kay xam nga ne waxtu bi jotul soxna si dimbalu leen seen bopp waay jàppale ñu jàppale seen bopp yaa ngi génn ci jëliñ saako xamoo li ngay dajal xamoo ña nga fekk ba pare nar a ñëwaat fekk si sa njaboot fii ci biir kër gi te boobu jàngoro bi du ji mooy dox mais nit ñi ñoo koy ndax léegi sa boo war a defee mbir moom sànni. Ndiaye Ndiaye Ndiaye Ndiaye Ndiaye Ndiaye Ndiaye Ndiaye Ndiaye saaku mburu la jëli de pour koo def nga sant Njaay ah ah kon yow tey fi mu nekk nii dara loo mën a wax ah, njóobeen ah Njaay am na ay njóobeen fii de xaw ma nag kon nag jégalu njóobeen moom ah jégalu jégal déedéet fii xale bu góor bi nag boutique la moom maanaam dafa yor boutique di jaay waaye dafa wéyoon di amal ab liggéeyam ci fi nga xam ne moo di euh, Guédé euh, foofu lañ ko fekk ci euh, takk der yi wax ak moom waaye comme niñ ko faral di gisee te noonu lañ ko xamee tamit ci lu bari ci askan wi mooy ko ci jàpp ci yenn yi tamit daanaka ay lay rek la lay indi. soosu ñu ñuy joxe jox dootul am mais am na loo xam ne soo koy def day mel ni yëfu marché yi déjà soo ubbee sa boutique est-ce que ñu ngi jënd si xam nga leen da leen di xam waaw mais am na ñoo xam ne doo leen xam est-ce ci yor doomu jàngoro bi di nga ko xam bu ñëwee di jege la ñëw ne la jaay ma benn yow soloo masque soloo gaaw kooku ñoo ñu lay jaay billet ñëw yor doomu jàngoro bi ñoo ne la jaay ma nga téye sa billet boobu mu wàlle la doomu jàngoro bi nga dem sa biir kër wàlle leen ko doo leen hmm? te xam naa li muy jënd pour pour wàll la ko du mot du toll noonu ah hmm? jàppale seen bopp jàppale leen xam nga dafa neexul ni nekk fii ci waxtu wi di dox ci waxtu wi jittiwoon pour uniquement pour leen seen wér gu yaram jàngoro ji nee nañ la du jàngoro jiy déplacé mais nit ñi koy déplacé hmm? kon nag buñ ci jëlee ay matuwaay ku ci nekk war nga doon responsable waaw sa bopp ak sa njaboot mais liñ la def rafetul waaw te bu ëllëgee nga ne voilà citoyen nga xam nga sa devoir wala xam nga sa droit te અને યજ્ઞ વિચાર દીધા છે દવા જેવું બોલાવી lu tax moom yenn waxtu yi su jotee du ñëw xool la ñu a waaw moom la def daaw ñu def ci biir rek. non sa waajur góor mu ngi gën. muy gën mais waroon na laa mën a amee tuuti wala nga daan fekk ma tëj daaw damaa jàppoon rek mais heure bi daan fekk tëj vingt heures daan fekk. boo jàppee ba tëj cinq léegi ba suba. nga yóbbu police yi dégg nga ci liggéey bi nga xam ne police ñu ngi koy amal ci guddi gii di alxames maanaam jeudi 19 avril ñuy wéy ba gisaat euh, ci foofu ci Guédé góor gi nga xam ni moom tamit nee na dafa demoon julli ji waxtu gee kon police nag liggéeyam euh, dafa jëm ci maanaam saytu lépp loo xam ne kaaraange askan wi la te kaaraange googu mag ñaa ngi ci ndaw ñaa ngi ci kon nekkul luy bàyyi kenn wala luy bàyyi fenn moo tax noonu la def taxaw wax ak moom donte mag la ay atam sori na euh, wax ja nag rek gën koo dénk ci lépp loo xam ne rek moom la yoon di bañ tamit ñu sàmmonte ak loolu moytu ko. ay ah julli la julli julli julli jàkk jàkk yi dañ doon julli wax dëgg yàlla. dañ doon julli de. xam nañ ko xanaa kay. waaye xam nga dafa am. waaw kon loolu déglu la joxe. waaw kon loolu déglu la loolu lépp. pour yéen la rek. waaw dëgg la moom nga xam ne ñoom. gisee ñu ciy jox waxtu wii. waaw. waaw. pour lu leen aar la aar seen jokkoo. dëgg la. yéen nag yéen a ñu mën a dimbale yéen ñii borom kër yi. waaw waaw. julli dafa jàkk julli daal ñun lu mën noo koy wax njaboot bi lu ñu mën luñ ci mën a ñoo ko ciy maanaam julli gi nag da doon def nga ay biir daal lañ doon julli njaboot gi nag luñ ci mën gi. waaw. wér d'abord nga ki wérul. waaw. tal wala sa njaboot wéradi. dëgg la ko tal. loolu boo jógee fële. sa kër ñëw ci jàkka ji. waaw Omar na nga daje koo xamante mën na laa. mu yëkkati ne mu ngi lay sax wala mu nuyu la xamaat na mu yor jàngoro ji te doo ko xam ah, nga julli ji dem sa kër ah, fekk fa njaboot yi wala lépp parce que bu boobaa ah. waxtu woowu mu jotee di nga tala tey julli ñoom ngay tal ah voilà ñoo ngi jégalu rek voilà ñoo ngi jégalu rek dégg nga waaw waxtu bi jotatee daal nga dem nga toog julli bi moom boo toogee sa kër war nga fa mën a julli hmm? dégg nga waaw ñu jégalu kay bu bu jé moom kon ñu ñu ñu ñu jigéen fii quoi. xanaa kon réeré ko réeré. réeré ko réeré ko. loolu sax loolu am jaayeen la xam naa ne réeré ko. wax dëgg yàlla réeré ko di la réer. ah yaakaar naa daan naa ko def de. daan nga ko def. Ah, waaw tey nag dañ ko def. ah dañ ko daan ah ko defe naa ndax war na baax. war na baax ah, waaw. lu mu am cere la wala cere. ah. ñu nekk dañ la fee léegi nag cere am ba léegi laa ko mos a am ba léegi dégg. ci baxal. kër gi nag dañu leen fa comme ñu làng ca seen buntu kër maanaam ci mbedd mi teg seen i togg lal seen basan waaye teg seen i reer sax nag ak seeni ndox waaye bi ñu seenee police kenn waxatu ko sa moroom noonu lañu ñu meebu rek daw tàbbi ca biir kër ga teg seen i buntu te police ni muy def rek boo dawee tamit du la dàq. waaye dina taxawoo la waxtaan ak yow yedd la dénk la loolu nag muy loo xam ne lu am solo la askan wi war ci mën a bàyyi xel te moo war a sax ngeen di gis yenn image yi du image yoo xam ne nii jàpp nit la euh, def ko lu metti walla wax ko naka sudul noonu déedéet mais ay kat euh, kàdduy ndénkaane la kàdduy soññee waaye kàdduy ñaaxaate ngir rek ñu bokk moytu Soalnya kumpul kok, tapi lu kumpul kok. Kai kai kai. Ini ini santai ya. Saya kenal. Kai kai. Soalnya ngomong aja sih mau modal. Waaw, kayak kenal bañ ko yor kurusam nee dafai dafai berdam, motah ay fofu. police taxul ñu romb ko ndax ni ma leen waxee rek dogal bi bàyyiwul dogalu kaaraange la dogal buy aar askan wi la te kaaraange bi bàyyiwul mag bàyyiwul ndaw bàyyiwul góor bàyyiwul jigéen moo tax ñu taxaw wax ak moom eh, def nañ ko doon defe rek ci ñi ñu weesu te mooy dénk leen waaye tamit gën leen a ñaax ci ñu moytu rek li nga xam ni moom la yoon di bañ. mandei kamu nuku kamu nuku nya kunu kum ya ndax ñoom sunu borom moom moo amee jàmm moom rek lu xam moo am jàngoro jooju su ma ci gàppoon tey damay jiyee su ma su ma soxlaa itam man maa yóbbu ci lu dul jàngoro jooju suñu borom daal yàlla daal wékkalu ci suñu suñu borom. waaw waaw waaw yàlla yàlla béy sa tool bi maam booy foog naa buñ ne jàngara gii buñ ne nañ moytu ñu moytu ko rek moo gën li nga wax nag am na mais terewul ñu moytu de. Hmm? waaw ñu ñuy moytoo mooy lii nga wax ne comme dañuy jàngaro ji nit ñee koy déplacé xam nga jàngaro ji doxul mais nit ñee koy yor yóbbu ko hmm? Hmm? su ko defee yéen yéen a fi nekk nekk mag yàlla bàyyi leen ngeen war ñoo dimbali yàlla waaw ngeen dimbale ñu dimbale seen bopp xam nga tey fii nga toog mën naa jóge fële rek ñëw fekk la waxtaan ak nuyu la fekk mu ngi doomu jàggaru bi mais doo ko xam yow nga jóg dem sa kër sa biir kër wàlle sa njaboot est bu boobaa dina mën a tee toog fii di féexlu te njaboot bu ñu amul wér ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi ci loolu rek. man de loolu seen yoon rek la ci laa wéccéet moom. waaw saa ko seen borom rek la daa wéccéet. waaw waaw man daal loolu ci laa wéccéet man. waaw léegi ñu ngi lay ñaan. léegi seen bopp léegi kër ga mooy gën. waaw waxtu yi jot na dégg nga. waaw yal nañu ci suñu borom bi defal ñu mën. xam nga ne yal nañu ci defal ñu mën moom mi nga xam ne mooy am mooy joxe ndimbal ci doon ndimbal ci barke moom. te moom itam ñoo ngi ñoo ngi muslu waaye yal na nu muslu muslu yal na nu musal ndax muslu taxutu mucc waaye nag nañ muslu rek waaw nañ muslu rek nañ muslu waaw waaw nañ muslu rek waaw buñ musloo xamaa ne yàlla musal ñu waaw bisimilah waaw bisimilah voilà waaw ci liggéey bi tamit la police dina di daje ak ay daamar maanaam ay oto yoo xam ne ñu ngi dem ak a dikk ci dëkk bu sell bi donte dañoo tere dem beeg dikk bi ginnaaw bu 8 heures jotee jàpp 6 heures du matin waaye ay autorisation la ñu doon euh, jëfandikoo ngir mën a amal loolu te xam nañu ne jëwriñ ji ñu dénk wàllu doxinu bi réew mi dafa neenaloon bépp autorisation boo xam ni euh, nit yoroon na ko ngir di dem ak dikk moo xam ci biir dëkk bi wala ci biti dëkk bi waaye teewul ñoom dañu ko yor ba tax na police dañu def contrôle boobu euh, teg ci loxo waaye voo fi nga xam ne moo di euh, poste police su guy mbind ngir mën a lijjanti loolu ci noonu tamit gis nañu yeneen i boroomi oto yoo xam ni ñoom dañu doon conduire sax te yoruñu woon li nga xam ni moo di permis de conduire yoruñu tamit benn pièce boo xam ne nii dafa euh, jëm ci wàllu oto ba moo xam assurance la moo xam carte la lu mu ci mën a doon ba tax na ñoom tamit kenn finnaalu leen kenn waxu leen naka sudul noonu waaye woo nañu leen yóbbu nañu leen ci fi nga xam ne moo di poste police su euh, guy mbind ngir mën a lijjanti moomu lay mbir. da ngay tàll mais man loolu su ma métti sama poche kon o lu may lay wax ci préfet ma xool catégorie non non organisation amatul organisation amatul voilà bu ma mënee le commissariat de Gouy Mine check point bi nga xam ne moo nekk ci rompoint point bu ndaw diggante jumaa ji ak station gare bu ndaw bi ak tali bi nga xam ne foofu moo soqi ko ci marché Ocass jëm yoonu Ndindi fi la ñu nekk nii fekk fi éléments yi nga xam ne ñoo taxaw foofu di saytu dem bi ak dikk bi ci nit ñi wala ci waruwaay yu fay jaar noonu la ki nga xam ne moo di euh, euh, commandant Jaxate ànd ak ay éléments ñu dëkk ko suñu micro mu ànd ñu fi ay leeral ginnaaw bi mu saytoo ndaw yi nga xam ne ñoom la teg foofu ngeen ñuy amal liggéey bi. voilà donc maa ngi ñëw fekk ci éléments yi vraiment aussi ñu ngi def euh, liggéey bu rafet donc fii mooy intersection gare bu ndaw donc il est difficile nga de nga circuler biir Touba wala fara wala dara te doo doo jaar secteur bi donc point la boo xam ni c'est stratégique donc moo tax chaque fois dañuy imposer éléments yi. pour ñu teel a ñëw maîtriser secteur bi donc la preuve keroog jàpp nañ fi koo xam ne nii dafa dem daal di dugg jàmbur sàcc ay kii donc ñu yor yëppkatu charrette sàcc ñu six sacs suukar yëppkatu charrette bu ñu ñëwee éléments yi ñoo taal oto dàqante dàqanteeg moom mu sànni saaku suukar yi éléments yi dàq comme charrette la yoroon te éléments yi oto yi ñu yor am na secteur yoo xam ne mënuñu fa dugg rokk yoo xam ne mënuñu fa dugg mais quand même mu daal di rëcc mais mujj nañ jàpp suukar yi. Nous sommes aussi damay apporter un euh, éclaircissement ci autorisation mm. jusqu'à présent nous kenn waxuñu ni préfet dana autorisation nous wala nangam sangam dañ ñu wax ni autorisation à partir d'aujourd'hui à vingt heures. une autorisation d'autres valable. donc nous avons kilifa une autorisation valable Nous avons une instruction donc ci loolu la donc auto bu ñu ci dajeeg moom la doon wax élément auto buñ dajel ñu yor autorisation nañ jël pièces yépp afférentes à la conduite ñu buut yépp inviter les chauffeurs à ramener le véhicule au commissariat ñu immobiliser ko ñun ñu xool la reste nan lañ ci doxale mais jusqu'à présent jotaguñu benn kayit wala benn wax joo xam ne kilifa yi nee nañu oto yi ñëw yor autorisation ngeen bàyyi leen ñu dem non non ñu circuler non non jotaguñu. ak autorisation yi dëkk bu mu. dëkk bu mu mën a jóge dañ koy immobiliser dañ koy immobiliser waaw donc moom laa doon amoon léegi ci euh, gis nañ lu yéeme gis ñoo xamante ni wér di xel lañ am ngay naxtaanante ak ñoom euh, yàgg siin naxtaanante naxtaanante hmm. bam lay wax wax yéeme yoo xam ne ni Modou Kane nga xam xol bi daa xaw a oyof ndeysaan rango ñu xaw naa toog nga fexe ba dugal ko ci biir néeg ba laaj ko néeg lu mu ci soxlaa gi meloon ndax mën nga ñu dikkalaat kii geste euh, yu noble yooyu nga xamante ni bi police b guy mbind ñu ngi koy def waaw euh, euh, vraiment Moussa am na loo xam ni ça se comprend ñun dañoo dëkk ci ci société bi toujours dama koy wax ñun ay sénégalais lañ dañu yor xol ay nit lañ dañu yor mag yor rak ba pare aussi suñu métier police liñ ciy jàng dañ ciy jàng nan la ñuy xamee nit nan la ñuy waxee ak nit nan la ñuy dundee ak nit école police académie la école police day formé

aussi dañu bëgg lu xam si vraiment pour pour yow alcade bi nga fajj ko ñoom li ñuy plaindre noonu loolu ci mën xar ci sa tànk tubé nga def ko parce que moo fa sincère police de proximité buñ koy wax mooy police bu jege population di xam ni xaw li xem di euh, xam ni xew population nga nga man ci am aussi lu tuuti loo ci mën a satisfaire même bu fekkee lépp mën ko def donc loolu moo ñu tax jóg loolu la ñuy liggéey di dugg ci biir population bi di xam li leen naqari di xam li leen neex ndaw soosu ngay wax kooku dañ koy jàppee comme suñu sœur dañ jàppee comme suñu jabar dañ koy jàppee comme suñu soxna ngeen baal ma ci terme bi dañ koy jàpp comme suñu soxna donc dañuy xam li nekk ci moom jéem a naxtaan ak moom dugal ko ci biir kër gi benn jéem a xool néegam lan moo fa manqué parce que da lay loo xam ne fii peut-être waa kër mi ko mën a comprendre mais ñun dinañ ko mën a comprendre ci côté boobu la naxtaan ak moom wax ak moom jéem a am luñ ci waxtaan teeg moom ñu ci mën a apporter ñu apporter ko ci luñ ci mën a jubbanti ñu jubbanti ko ci waxtaan ak waa kër gi aussi ñu am quelque considération envers elle parce que loolu aussi dafa am solo nit mi ngi génn këram di dem mais bul xool la ko génnee mais xoolal la ko waa kër gi def tax muy génn mais am na ñu koy yaatale rek macha allah te waa kër ga aussi yaatal nañ ci xëy na donc loolu day yomb ci ñun parce que bu dul dara ay sénégalais lañ ci dëkk bi lañ dëkk am nañ dañuy déglu nit ñi ñu wax ak ñoom nit ki li nekk ci xolam déglu ko mu wax ko mais n'empêche chef bi li nga bëgg def wala li nga bëgg wax la am na moyen yoo xam dañ koy def ba am ko te doo ci loolu la quoi vraiment ñu ngi jégalu ko euh, ci noonu nag la ñu delluwaat ci poste police bu mbind ngir taskatu xabaar yi war a ci seen i kër police mën a wéyal liggéeyam ci guddi gi yàlla euh, am na solo trop euh, waa ñu yow होईल घ्या हाते बापा शेरवाजी त्याला रेफर सेफ्टीच्या प्रेझाने तिथे ओके मेसेज मेसेज non non non non Balla Balla bu la xoolee suñu naaw de bu la xoolee suñu naaw non yéen yéen man ngeen kii baal